salaam salaam suma abonné maa ngi wax ñi ku nekk naka guddi bi because time bi ñu ñu ngi nekk si guddi maa ngi waxal dëkk bu may waxal nii dama bëgg ku nekk soo gis vidéo bi nga déglu bu baax mais bi ëllëg daf laa dimbal dama bëgg ñi ku nekk nga xam si dëkk yi bala nga dem maa ngi waxal ñi ku nekk welcome to Bulgaria Bulgaria fan laa nekk mu ngi nekk Europe Bulgaria fan laa nekk si Europe. Bulgaria mu ngi nekka Romania ak Serbia Bulgaria mu ngi nekka si diggante bi Romania ak Serbia seen diggante bi Bulgaria foofu laa nekka maa ngi wax la ñu tukki nekka welcome to Bulgaria capital bi moo tudda Sofia soo dégga Sofia capital Bulgaria la Bulgaria Europe laa nekka ñu dem Bulgaria ñu dem Sofia welcome to Sofia ñu dem fii mu nekk si booda bi maa ngi jóg Romania maa ngi ñëw Bulgaria Sofia Sofia foofu Sofia fa ban yoon laa nekk dama jël Bucarest dama jël train Bucarest ma dem Bulgaria Sofia maa ngi ka si yoon bi waaw maa ngi ñëw egg si ehm, si eh, bi. léegi suma ma egga boda bi ma waxal fii mooy boda bi gis nga Roumanie ak Bulgaria fii mu nekk si boda bi ok léegi ñu dem Sofia ñu ngi nekk si yool bi jóg si boda bi gis nga fii mu nekk boda bi léegi ñu ngi jóg boda bi ñu ngi dem si capital Bulgaria capital Bulgaria naka la tudda Sofia ñu dem Sofia léegi yow ñi ku nekk soo gis suma vidéo bi nga dugal bu baax pour nga xam si yoone bi pour nga xam Bulgaria fii mu nekk Bulgaria léegi egg nañu Bulgaria si capital bi mu nekk Sofia soo dégg Sofia fii mu nekk Sofia capital Bulgaria ok lu ma gis Bulgaria loolu laa wax yéen because lu ma gis loolu la wax waaw xaw ma benn nit lu wax wante man lu ma gis loolu la wax Bulgaria fii mu nekk capital Bulgaria capital Bulgaria dafa rafet bu baax capital bi rafet na Bulgaria dafa rafet bu baax. wante lu ma waxal yéen ñiitu ku nekk bul dem Bulgaria Bulgaria soo ñiitu ku nekk soo gis ma vidéo bi Bulgaria baaxut bul dem foofu soo dem Bulgaria pour nga am xaalis problème la Bulgaria amatu xaalis Bulgaria dëkk bi mu nekk bi dëkk bi dafa rafet bu baax wante pour nga am xaalis loolu mooy problème bi waaw Bulgaria mu ngi nekk Europe waaw wante dëkk bi amatu xaalis ok ñi dugg nekk su nekk bëgg nga dem Bulgaria nga degul ma bu baax and then ñi dugg nekk soo gis vidéo bi nga partage vidéo bi pour yeneen ñi di ñu xam aba ñu xam si Bulgaria because dama bëgg ñi dugg nekk bala nga dem Bulgaria Bulgaria bala balaa nga dem Bulgaria nga xam Bulgaria fii mu nekk Bulgaria fii baaxut bul dem fii soo ñi dugg su nga bëgg nga uti xaalis dina la waxal dëkk bu baax wante dëkk bi baaxut bul wes bul wees sa time soo ñi dugg soo dem si dëkk bi dangay wees sa time rek pour nga am xaalis kay dangay fàtte loolu dëkk bi kat rafet na waaw dëkk bi rafet na wante Bulgaria seen ñi di sa baaxut loolu mooy problème bi xaalis amul si dëkk bi dëkk bi sa seen ñi di tam baaxut non problème loolu moo dafa bari ok. léegi lu ma wax la affaire Bulgaria yeneen itam ñu ngi bëgg a ñëw Bulgaria pour ñu ñëw Europe wante lu may mun a wax loolu pour nga jóg fly pour nga am fly o oh, pour nga am yónnee pour nga ñëw Europe dafa metti because dafa am contrôle bu bari waaw soo bëgg a jóg Bulgaria pour nga ñëw Europe dafa metti dafa am contrôle bu bari because fly boobu soo su nekkee da nga bëgg a jóg Bulgaria pour nga ñëw. Almania oo nga ñëw Francia oo nga ñëw Switzerland dafa metti because dañu am contrôle bu baax dañu war dañu war a contrôle la bu baax loolu mooy problème bi lu ma waxal lu ma mun a waxal Bulgaria nit ku nekk boo nga dem foofu mun nga dem wante pour nga uti xaalis foofu dafa metti ah loolu laa mun naa waxal ñeen because dama bugga because léegi affaire xaalis dafa metti léegi nga fee xaalis bu nekk yaa ngi bugga dem uti xaalis dëkka dëkka bu nekk soo dem foofu nga xam dëkka bi bala nga dem foofu loolu moo baax waaw soo xam dëkka bi léegi yow su nekka bugga nga dem foofu mun nga dem des na si yow wante yow nga xam affaire dëkka bi loolu moo tax ma indil vidéo bi ñu ko nekk soo gis vidéo bi nga déglu bu baax fii mu nekk Bulgaria Bulgaria dafa rafet de rafet na wante pour nga am xaalis bi loolu mooy problème bi pour nga am liggéey loolu mooy problème bi liggéey amatu foofu waaw ñi di ko nekk soo waxal yow Bulgarie baax na moom des na si moom wante ma lu ma mun a waxal Bulgaria amatu xaalis Bulgaria pour nga liggéey nga nga uti liggéey amatu liggéey liggéey sax pour nga am loolu problème la waaw kayit Bulgaria sax son time balaa nga am dafay jafe-jafe wante comme lu ma mun a waxal ñi ku nekk soo soo bugg a demal dëkk bu baax loolu moo gën nga mun a ut xaalis nga am xaalis nga mun a dem sa ndeke loolu la wante Bulgaria soo ñëw fii sa time rek mooy yaaw balaa nga am xaalis problème la and li fi bu nekkee soo bugg a laaj sax ñoom buggutu waxal ak yaa buggutu waxal ak yéen loolu mooy problème bi Bulgaria fii mu nekk Bulgaria capital bi mooy Sofia capital bi dafa rafet yi wante lu ma mun a wax la nit bul dem Bulgaria soo dem Bulgaria rek nga dem ak sa laal te daan nelaw bala nga dem Bulgaria ñi dugg na nga su boo nga dem Bulgaria nga jël sa laal comme bii nga am bii because te daan nelaw rek mu nekk foofu loolu mun a wax la yéen ande ñi dugg na nga soo bugg a dem Bulgaria ah lekka kay mu ngi foofu de nga lekka lekka bu baax nga tëdda nga nelaw loolu mu nekk foofu wante pour nga mun a am xaalis yi yow nga mun a seen xaalis san san njóobati loolu dafa nekk problème dëkk bi ñu ne nekk Europe loolu laa wax suma vidéo bi ma ne du indil vidéo bu nekk dew ma foofu lu ma dem Bulgaria lu may gis loolu laa wax yéen ku nekk nga déglu ma bu baax Bulgaria fan laa nekk mu ngi nekk Europe Bulgaria ak ban dëkk mu nekk sorowut mu ngi nekk ak Roumania sorowut ak Serbia sorowut mu ngi nekk si diggante boobu waaw Roumania ak Serbia Bulgaria si diggante boobu laa nekk. Bulgaria falalika mu ngeni ka Europe wante pour nga jogu Bulgaria nga ñëw si France yi o nga ñëw Almania o nga ñëw Spain dafa metti because dafa am contrôle bu bari dafa am contrôle bu bari loolu moo tax Bulgaria bugguma ñi ku nekk nga dem foofu ñi ku nekk soo gis suma vidéo bi lu nga gis su nekk lu ma wax loolu fen la yow mën nga ko bindal yow lu nga xamee ñi ku nekk soo gis suma vidéo bi nga partage suma vidéo bi pour yéen a ñi ñu xam affaire Bulgaria waaw fii mu nekk Bulgaria capitale bi mooy Sofia capital bi defar rafet bu baax wante Bulgaria amatu xaalis ñi dugg rek soo gis suma vidéo bi bul dem Bulgaria bul dem Bulgaria soo dem Bulgaria danga dem waste sa time sa time rek mooy yàqu foofu welcome to Bulgaria capital bi mooy Sofia